nit ki balaa ngay laax laax jaay. da ngay laax lekk ba ba noppi. tey ji Sénégal di mu gënoon boroon a gën a privilégié mooy recherche. Mhm. avant tout recherche. te tey ji amul benn recherche bu fiable boo xamante ni tey ji mën nañ la ko jox ne lii lii lii ci ay débarquement lii lii lii ci ay stock lii lii ci ay mhm. stock. Mhm. amul bato bi fi nekkoon daan def recherche mu ngi nii panne. Ah depuis ca jamono yi ni ñu koy wax di euh, euh, euh, Omar Gueye ba léegi bato baa ngi nii ci biir port waa CROC ci lan la ñu lan lan la ñu sukkandiku pour joxe ay ay ay ay ay ay chiffres mhm. amul fenn fu sukkandiku ay nit la ñu sànni ci plage bi boo teeree ñu naan la far nga nappeek ñaata kilomètre nga dawal ñaata jën nga jàpp yooyu lañ lay jox te loolu amul dara lu ci fiable ndaxte mool mi tey ji foog nga rey malgré mool mi tey ji am na loo xamante dina tey ji boo ko ko laajee tey da kay daw ndaxte tey ji boo ko nee tey ji foo nappe mu jàppoon tey ji ko bu bari ah nga ko foo nappe mu ne la sànga mais bu ëllëgee bu ñu ñëwee fa la ñuy fekk ba tey ñuy mbaal. c'est sûr mm-hmm. du la ko wax mm-hmm. moo tax duñu ko wax. Mm-hmm. kon ni ñuy joxe ni ñu joxati euh, euh, kii yooyu nga xamante ne moom lañ leen di jox du dara loo xamante ne du fiable la. tey ji Sénégal li mu waroon a gën a privilégié moom mooy recherche. ñu xam tey ji Sénégal tey ji poids bi lan moo fi am. te tey ji boo demee ci statistique gu FAO yi espèce yu bëri menacé. yi nekk en de disparition yi nag na yenn yi nag dañoo disparaître complètement kenn gisatu leen ndax waaw bateaux usines la rek mhm. mais tey jii loolu moo indi fléau bi tey jii andi ni ñu koy waxee immigration clandestine nit ñi dem rek xale yi directement directement parce que parce que parce que loolu amoon nit ñi di ko napp ji di ñëw di jaay di ci sa poos mhm. xalaatuloo génn mu neex lool Sénégal yi daa wuñu génn sax dem Mauritanie